le ministre Ali Salah Diom nek ki nga xamne dafa bok ci Jolof nek nek ak askanu Jolof doon participer avant sax muy doon ministre parce que ñun ñëpp gis nañ bi muy doon ak ministre euh, premier kii vague bu pandémie bi indi na un lot consistant defal ko askan bi tey nag euh, mu indi au niveau de Dara lu tollook 25000 euh, masques indi lu tollook téeméer ak juroom fukk cardon de javel de 12 bouteilles yo xam 12 bouteilles bu nek 12 bouteilles lay def andi euh, ak 164 euh, cartons de gel de 24 bouteilles chacun Ce ko mi 15 millions manam ministre Ali Salah Diop andi na 15 millions au niveau de Dara li nak manon nañ ko def am ndaje mo askanu bi dañuy ñew le président Macky Sall diglé mooy que mi sonal donc je respecte respecter les gestes barrières je tax convoquer les chefs d'établissement convoquer les chefs de quartier convoquer le président de la gare routière convoquer les imams ce lépp approche bi ci am afin que lii nga xam ne mi ngi koy joxe mu mën askan le président de Daral ou Daral ñi ou fi waa marché fi donc non la ko jàppee moo tax mu ne day def loolu pour loolu mën a dugg ci askan bi parce que nous, jàpp ne mbas mi dañu sonal bo démé mënoto julli jakka bo démé pour nga dem marché ku nek da ngay tak masque donc don na mbir mo xamantena sonal na askan bi motax tay mune ben bi day ñëw daara jappalé askan bi andi li nga xamantene mom la yor pour que kat ñu bokk xéxando pour que mbass mi mën fay joggé ñu mëna déllu ci lañ nekkon lolo tax tay mo andi une valeur de 15 millions pour jox ko askan bi dimbalé ko askan bi approche bi mëni nak l'approche communautaire moy que au lieu que mu koy jël di koy joxe di koy joxal boppam déedéet daf ne da koy jël jox ko chef de quartier ba délégué de quartier ba délégué de quartier ba mooy xam kan la koy mën a jox parce que moom moo xamoo askanam day jël jox ko chef d' établissement chef d' établissement xam nu koy defale donc approche communautaire bu la indi moo tax mu jël lii jox ko askan bi wax dëgg yàllaam pour ñëm ñu xeexandoo jàppandoo pour que kat lii nga xam ne mooy mi mën fi jóge.